mi ngi noonu internet Dakar Buzz comme ni ñu leen ko waxee rek ba tey ñu ngi ci xewu Khalifa Mbergane bi euh, xew bi nag gis nañu sant moo fi am waaye ñu fekk fi xale bi nga xamante ne naa la réew mee ko jox bopp muy Mouhamed Diop Allah tabaarkalla gis ngeen ko jàng yu am solo yooyu nga xamante ne def na ko Mouhamed ñu ngi lay. maa lay fay Adja Lalla mu baax mi di nuyu équipe Dakar Buzz yëpp di ziar waa Sénégal di leen baalu te di leen baal àq di ñaanal sama kàddu gi yàlla fekk ñëpp ci jàmm ci barke. la euh, dama seetlu fu ma la fekk rek da takk noir da nga am problème mu bët wala lu mu. <laughs> non maa ngi baax dama xam ne lii bu verre daf ma jàpp moo tax may takk verre ah, ma xooloo yow. verre ndax simple. non verre dama yeewu dama yeewu waaw dama toog jàkkaarloog seetu xool sama bopp gis ni verre yi maa ngi baax pour moo tax ma fekk rek ma noir fii ba dama ko def sama poste rek gis ko mu ànd ak man waaw. ayca ngi doonu ñu gis la tey ci bésu xalifa bi ban yëg-yëg nga am. waaw contentement ak mbégte rek. ndax xalifa day ku baax fonk ma jox ma cër lool xeebu ma ci benn côté. am doom suñu borom dogal mu sentir ma woo ma na may walaa ba ñu indi sa ñëw bëggal samay nit moo tax nag ma bàyyi sama yitte yëpp teel a yow ak xale yi ñëw ngir bëggal si euh, waa Kër Massar lan nga koy dénk digganteem ak soxnaam ginnaaw bi doom ji euh, gan gi ñëwee ci ci waaw yàlla musal leen ci seytaan rek ak cat ndax sëy moom ku ci ku ci yokku nag yaa wàññi sëy moom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ak famille bi ñoo ci jàpp ndax benn sëy neexul na ci jàpp rek gën a xam ne ay xale lañ te am na lu ñu bëgg ñu taxawu leen gën leen a ñaax jàppale leen ba fi ñu bëgg àgg ñu àgg fa ba kenn ku ci nekk yàlla na yeex nga suul sa morom. projet yi fu mu toll rawat na projet mariage. sama pro sama bi ñu teg sa bët ndax yow bi lekk la may du ma la ci may virgule projet yi nag ñu ngi ci moom ñu ngi ci wàccaay album bi incha allah rabi léegi mu yeeñu bu soobee yàlla ak yeneen i tournée yeneen ak yeneen incha allah rabi di ñaan yàlla yàlla motali ko loolu daal mooy projet yi ci des moom ay ay code la maanaam daal xam naa ne sama mbir dalaa raw fu mu toll yaa ngi xalaat loolu fii nga may fekk man code yi yëpp dama ko xam euh, bëgguma tooñ parfois du may bëgg a tur waaye sama rakk jaara seen petit gàlle nuyu euh, nit ñaa ngi laam-laamee yéen ñaar seen relation ne rek mbëggeel dafa dox seen diggante yan leeral nga ci waaw loolu dama ne woon du ma sax wax ndax sénégalais yi moom da di boo nekk ak ñoom rek da nga leen di bàyyi ci kumpa loolu lu weesu la kon nag doomu bu nekk nga yàlla booy labat nga labat soxna xool ku baax ba suñu borom boole leen ngeen ànd yàlla moo ko tuddoon waaye jeex na amoon ngeen relation daal waa relation amoon na suñu diggante mais jeex na ndax nga may ma jàmm quoi non mais warul jeex warul jeex parce que yéen ñaan ñëpp ay xale ngeen te yéen ñaan ñëpp yéen a bokk li ngeen di def non ak jaara sama rakk la nit ku baax la nit ku am am respect aussi nit ku am fulla vraiment ci liggéey laa ko xam parce que jàpp njàmburam moo yor relation te loo gis si àdduna day am bakkan daa war a jeex rek mu jeex yàlla yàlla may ko jëkkër ju baax man nga ñaan yàlla may ko jëkkër ju baax. ne jaajëf. amiin jaar deful dara yow yaa sikk jaar xale bu baax la xale bu yoru liggéey jàpp. waaw jërëjëf da ngaa doy waa. xamoon naa ne lépp mën nga koy def waaye jàll baax na man man man yonent bi rek laay topp allah rek laa xam leneen loo ma jiiñ rek da nga maa bëgg a tooy. yaa fi yaa bu leer nañ. dama bëgg noppalu dama bëgg site internet ma jàmm bu mag si kenn laajat toot naa ko Dakar Buzz bu ma kenn laajaat mais keroog ñu ngi la doon xaar ci jàng Aboubacar Samb yi fële ca Tëngéej gisuñu la seen diggante dafa commencé ñaaw wala lan ma problème bi problème bi c'est que yamul quoi booy la si sama booy la waaw ñoom yàlla daa dogal xam nga rek yow xam nga man la xale yi xale nit ku baax la mais jour boobu dafa fekk ma joué ji guddee ma woote ñu ne ma tas na moo tax jotuma ci àgg mais yow ñun dañuy seeti jàmm bi dama ko dugg la abu sama xar la damay tooñ sax naa man Neymar naa ko Mbappé naa ma maa la gën a xew naa ko naa ñu door ko xam nga nit ku baax la ma koy nuyu de passage ak képp ku nga xam ne yaa ngi tagg yonent bi alayhi salaatu wa salaam lay jaaj maa ngi la koy delloo bu baax a baax li nga bëggoon am nga lan laa bëgg ah, jërëjëf laa la mën ngaa dem dëkk Dakar ba maa leen di béggee di béggee sama sopp yëpp di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfeex waaw am leen jàmm jërëjëf bul ma mayaat beneen nag doy na yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla samay naar farame ta samay naar bay Serigne Mansoore Pap Mbay Tijaan bu mag bi ndeysaan bi ma dooree am ñu naan dafa waane ñee sax naan duñ gis dël yow laa gëm yow laay woy jooju waay waay na béy na béy na béy na béy maa la woo ay mbaw boo boo bëggee Serigne Saliou nangoo muñ nangoo muñ doy loo yàlla xam laay kii mu mel amul feneen Ismaila Ba xamoon ni loo doon mu dëgër loo far mu wadee dama doon way àlla jobay sama baay boo dee sama maam danga naan jóg gi leng ndax Biramata Goddu Sanjeme Mamour Thiam battal ku mokk la lay tigéej Mamour Demba ma mama colorom maa ngorom far bay teeñ aka ma xam samay maam diggante jaaj ak su ma waye dama war way su ma wayu ne dama war a way kuli mi ci ndar joli mi ci tar bi ma jaate sama maam ee gita ma mori taw ma mori ma mori mi nunda bopp ba gi samay maam ma donu samay maam neex maa ngi gis ni ñëpp concentré woo di ma di ma bàyyi xel barke yonent bi ayca mi ngi noonu internetu Dakar Buzz comme ni leen ko waxee rek ba tey ñu ngi ci xewu Khalifa Mergane bi euh, ñëw daje feek Mboose ñu ngi lay Lalla ñu ngi la jaajëfal baax macha allah di la macha allah mais Mboose tey da ngaa ñeme sa bopp puudar woo defoo dara da nga ñëw nii non man man man naturel man naturellement nii laa mel waaye tey bis dafa doon bis boo xam ne la bisu légère la parce que xol dafa set Khalifa Mbergane dafa def lu rëy rëy rëy moo tax les armes lañ koy def ndax dafa tàng waaw. mais dégg naa nga doon jooy fii loo doon jooy. non danaa jooy nag parce am na yoo xam ne bu ñëwee jooy surprise da ngay jooy. surprise bi lan la. séenu bu Mbergane bu ko Khalifa Mbergane tuddee doom war parce dafa am fu nu jaar diggante mag ak rak ci jàppante ci booloo ci juboo ci bokk nday bokk baay séenu Mbergane yërëm ndax seenu mbergaan xalifa amu ko moom rek mag xalifa am na mag bu góor macha allah tabarakallah mais xalifa seeni euh, euh, bu dafa taxaw taxawaayu góor jàppale rakam ji dimbali rakam ji ànd koog ay rakam tabarakallah nday as macha allah tabarakallah yàlla yàlla fi cat bu dumee tudd doom ju tey mu nekk ci man loo xam ne xalifa xam na seeni bu xam ne man xam naa nday jeg seen yaay xam na ndax tabarakallah ka nga àndal ba ngay xale bu tuuti nga yar ko dugal ko néeg musée yi tubaarka nga fekkee léppam mu ànd ak rakam di koy jàppale di ko dimbali te sottandi ko te yàlla tax ah bu neetuf doom nag damay jooy. Eh, ñaari mag rakk yu tuddante doom nga jooy bul mboose laa bëgg. ayca yan conseil ngay jox xalifa ci liggéeyam. non ñaari mag rakk yu tuddante doom ma ci affaire la. mbir la mbir. parce que ñaari mag rakk ñi fi nekk di demande police ñaari mag rakk ñi fi ne di rayante. dëgg ñaari mag rakk ñi naan bu ma laal doon ma dëgg waaye tey bu ñu demee tuddante doom day mel ni bu ma sama mag xalifa liñ koy dolli mooy xalifa duñ koy yeddaat xalifa amul duñ koy waxal parce que macha allah réew mi li fi ne lépp tubaarkàlla macha allah mi ngi ciy dox xalifaa ngi dox ci fulla xalifaa ngi dox ci fayda xalifaa ngi dox ci personnalité xalifaa ngi dox ci bëgg ay waajuram xalifaa ngi dox ci bëgg ay magam ak rakkam xalifa bëgg jabaram respecté liggéeyam am jom am fu mu teg tubaarkàlla boo jàkkaarloo xalifa xam ne kii xalifa la lu desaat conseil conseil mooy gën a góorgóorlu gën a jàpp gën a téye ay nitam yu yu tey parce que yàllaa ko boole milieu boobulee te mi ngi ciy dox day gën a yokk loxoom gën a def lu baax gën a góorgóorlu waaye li muy dagg ci mim réew di ko ñaw ci mim réew tubaarkàlla laf cat macha allah dama naan ko yokkal du wàññi benn yoon li am conseil ñu ngi lay jaajëfal fu ñu la gis gis sumbulu Soumboulou mi ngi fi mi ngi fi mi ngi fi mi ngi dina dina mi ngi ñëw ci bis bi. mais diggante Soumboulou ak Adji la ciy ba suba ak jàmm. Ah? ma ne ba suba ak ba ci kanam waaw. ma ci wax ba suba ci kanam. FG Partner Shipping, un outil gagnant-gagnant. FG Partner Shipping est une plateforme qui met en relation voyageurs et expéditeurs. Avec FG Partner Shipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût. FG Partner Shipping vous facilite le transport de bagages grâce à un rayonnage d'environ 10 à 20 km de votre lieu d'habitation. Que vous soyez en France ou au Sénégal, si vous prévoyez un voyage et que vous avez de la place disponible vos valises, nous vous proposons de vendre cet espace à un expéditeur qui souhaite envoyer des bagages de la France vers la France, de la France vers le Sénégal, du Sénégal vers le Sénégal et du Sénégal vers la France. fg-partnershipping.com. Contact arobase fg-partnershipping.com. Avec FG Partnershipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût.